waaw tey dañu ñëw euh, pour euh, ak huissier bi comme démb rek pour ñëw euh, indi décision de justice bi signifier ko direction générale des élections comme code électoral nu mu ñu ko mayee te yaakaar naa ni am na benn article code électoral mooy article L47 alinéa 4 mooy wax ni administration électorale dafa war a exécuter décision de justice immédiatement lépp lu jëm ci contentieux inscription sur les listes électorales donc tey ma ànd ak fii huissier de justice bi ak clairam ak euh, Cheikh Tidiane Dieye donc euh, bu avenir Sénégal bu ñu bëgg donc mu ñëw gunge ma pour en tout cas récupérer fiche de collecte de parrainage du candidat Ousmane Sonko mais ñu gis ni euh, DGE léegi dafa mel ni caserne la caserne police dañ ko transformer en garnison parce que ay policiers ñoo fi fees dell ñu indi sax ay unité d'intervention tiimale leen tiimale mel ni kuy menacer nit ñi te yaakaar naa administration électorale loo xam ne parti politique yi la citoyen yeeg mouvement yi dañu ko war a yombalal surtout ñoo ngi en période électorale parce que parrainage yi démarré na donc mun nañ ne opération électorale yi démarré na mais lu ñu gën a jaaxal ñun ñoo ciblé personnellement ñu ne man ak huissier bi duñu dugg waaw déjà bloqué ñu si bunt bi. non non waxuñu ñu ko waral commissaire Sarr moo génn benn commissaire Sarr. ñoo génn ñëw taxaw wax ak ñun mu ne je suis désolé mais on ne peut pas vous laisser rentrer loolu la ma wax. lii tam bu ñu la continuer nii saa ñëwee ñu éconduire loolu tamit ban ban plan ngeen am. waaw non am na ñun xam nga lu ñuy def yëpp euh, yoon moo ñu ko may politique moo ñu ko may code électoral moo ñu ko may te yaakaar naa ne ñoom lu ñuy def nii jaay doole la teguñu ko fenn euh, am na loo xam ne mënul continuer donc ñoom ñoo war a arrêter ñun lu ñuy def nii dañ ci am suñu droit. am décision de justice code électoral may ñu ko constitution bi may ñu ko donc actuellement ñoom ñoo nekkul si yoon ñoom ñooy jalgati yoon donc lu ma gën a metti nag mooy ñu koy ñuy jalgati yoon sax pratiquement ñoom si corps police bi nañu bokk ay commissaire parce que ñëpp xam nañu directeur général des élections commissaire de police la donc ku ma ku wax ak man commissaire Sarr ni commissaire de police la koo xam ne moom ah loolooy liggéeyam loi bi parce que légitimité boobu ak légalité bu mu am ci application loi nañ ko euh, moo ko may mais tey ñu gisee loi taxaw décision de justice taxaw euh, nga ne nga tiim député mu ñëw devant un service public une administration boo xam ne c'est une administration ouverte à tous les citoyens ñëpp di dugg di génn laaj mooy bu nii saa la ñëwee ma ne lii ma ne lii mënul continuer lii dañ koy dàqal parce que lu ñu bëgg moom ñun duñ leen si seetaan euh, continuer parce que su continuer nii mooy Sénégal nekkatul démocratie Sénégal nekkatul état de droit Sénégal nekkatul république Sénégal amatul constitution amatul séparation des pouvoirs donc lii mënul wëy donc ñun suñu fiche de parrainage ñu jël séquestré ko moom nañu bëgg ñu jox ñu ko ñun loolu rek nañuy laaj donc ñoom nag ñoo xam ne ñu koy defee mais en tout cas direction générale des élections moom amul benn droit téye suñu fiche de collecte de parenage dañu ko war a jox comme yeneen candidats yi parce que gis nañ tey ñoo xam ne ay mandataires nañu ñoo ngi ñëw di dugg donc non am na ñu fi dugg am na ñu fi dugg en tant que mandataire tey léegi nii am na ñu fiy dugg en tant que mandataire ñun nañ ko bañal seulement parce que mandataire Ousmane Sonko la donc Ousmane Sonko mooy seen problème ce qui veut dire que ñoom lu ñu bëgg à travers la DG lu muy def nii dilatoire la ñoo ngi jéem a gagné temps di jéem a euh, naxante ak ñun pour am temps peut-être pour pour leen permettre ñu utaat beneen pexe parce que gis nañ ni pexe boobu ñu utiliser woon muy radiation sur les listes électorales boobu pexe boobu nax saay na mënatuñu wax ni Ousmane Sonko du léegi lu ñu mu léegi comme que amatuñu argument amuñu leneen lu ñu wax léegi dañ ñuy bloqué ci bunt bi euh, fexe duñu sax taseek agent DGE donc ñoom loolu actuellement mooy seen stratégie mais loolu yëpp constaté nañ ko huissier taxawoon na je pense que y a des témoins donc ñun du ñu seetaan lii muy continuer. lan moo war doon seen seen seen combat au niveau international je je dirais national. non au niveau international déjà déposé nañu euh, recours au niveau de la cour de justice de donc ñoo ngi woo ñëpp ñoo xam ne c'est des amis du Sénégal que ce soit euh, les les pays étrangers nga xam ne am nañu relation diplomatique ak ñun que en tout cas ñu wax ak l'État du Sénégal pour le ramener à la raison parce que am na Union européenne ñoo xam ne ñoom dañuy intervenir en tout cas dans la supervision du processus électoral ñoom déjà war nañu tàmbali en tout cas lii ñu xool naka nañ koy régler parce que lii mënul continuer parce que élection yi déjà commencé nañ ko jalgati parce que élection si parrainage lay commencé su fekkee ni yow nit am na droit euh, jël ay fiche de collecte de parrainage am de justice may ko ko nga bañal ko ko nga ne du électeur mu dem justice justice tranché contentieux bi ñoom dañu war a en tout cas plus wu à la décision de justice mais tey lu ñuy def nii pour man vraiment c'est daño ruube la daal administration buy ruube dinaan du ma la recevoir di naan tey DG du recevoir tey nee nañu je suis désolé mais mënuñu la bàyyi ñu nga dugg. ñan ñoo commissaire Sarr commissaire de police boo xam ne moo fi ne moo ma ne mënuñu la bàyyi nga dugg. laaj nga ko les laaj naa ko mu ne euh, euh, lool rek la ma mën a wax. mais laaj ma ne ko man ak bi ngay wax wala mu ne ma yéen ñaar ñëpp yow huissier bi mënul def signification yow en tant que mandataire également mënoo récupérer sa fiche de collecte de parrainage. Ousmane Euh, non Ousmane Sonko fu ñu ko fu mu nekk actuellement kenn mënu ko dégg au téléphone euh, en détention donc euh, mais li ñuy def nii yëpp one en tout cas en bonne coordination avec lui parce que avocat yaa ngi koy gis ak ñeneen ñu ngi koy gis ah, en tout cas man lu may def damay concerté wu avec le président Ousmane Sonko mandataire la damay concerté wu avec nos avocats lépp lu ñu wax ñun on vient ñu def ko parce que lu ñu yoon may moom nañ ko def donc mu nu mënuñu mënuñu ne duñu fi ñëwaat loolu kay kenn mënu ko wax ñun mais après concertation avec le président Ousmane Sonko et nos avocats nous allons voir la décision à prendre mais de toute façon ak lu munti xew ñun notre droit duñ ci renoncer notre droit c'est le droit du président Ousmane Sonko à être candidat la liberté de candidature notre droit c'est de récupérer nos fiches de collecte de parrainage donc loolu moom xalaatuñu si sax renoncer si loolu lu ñu yoon may la lu ñu constitution may lu ñu code électoral may donc loo xam ne sénégalais yëpp a ci ànd républicain yeeg démocrate donc dañ koy xeex ba jot si ak nu ñu ko munti xeexee judiciairement ak politiquement nañ ko xeex voilà